waaw dem na Mali daal waaye xam naa ni ma ko gisee ne daal ak jorante yi muy jorante ci ay kaddu parce que dégg nañ ko ci Pape Alé Niang benn duo bu ñu doon def mi ngi mi ngi mi mi ngi mi ngi nekk ci réseaux sociaux yi waaye wax dëgg yàlla ku ko dégg ak na muy waxe moom xam naa ni moom dafa mel ni moom pareegul sax pour daw voilà xam naa ni lañ naan dafa wuti doole loolu laa ragal rek waaye xam naa ni daal nekkoon na koo xam ne daal xajoon na fi moom waaw réew mi nag am na foo xam daf fee toll fo tolloo nag nit ñi dañoo war a dellu seen xel xalaataat bu baax a baax xam ne ay ndaw fi ne te ndaw yi ñooy yor réew mi ëllëg ñu bañ leen a fitnaal bañ leen a euh, euh, teg yenn problème yoo xam ne dañ ciy am problème ñoom it ndaw ñi ñu xool bu baax a baax a baax a baax ba yenn problème yi duñ ci dugg ba leen ni jaral di génn seen réew ak yooyu noonu ndax kat àdduna bi du benn fan yaakaar naa ne nag yii di am nii nga xam ne sax jamono day am amoon na fi luy amaat la nii rek mais amoon la ndax daanaka mën naa ne histoire Ngagne Demba bi fi mu toll nii da ngay ñu ne am nañ ci nangam am na ñu demoon wala am na ñoo xam dañoo génnoon dawoon dem ñëwaat voilà yooyu yëpp da koy dégg ci ay ñoo xam ne nii ay nit yoo xam ne ci histoire voilà comme lii ngañ Demba lu def kon li yàgg na fi wala kon daal nañ bàyyi wat xel bu baax a baax xam ni réew mi daal xale yi ñoo ko yor bu xale yi demee nag ba génn réew mi. benn sën desatu fi nag wax dëgg yàlla réew moom mooy gent na voilà réew moom moom mooy gent na parce que jeunes yi ndaw ñi ñoom ñoo yor xam-xam bi ñoo yore ëllëg réew mi fu réew mi orienté wu jëm ndaw ñee ko fay orienté jëm kon nag ndaw dafa nekk surtout nag ndaw loo xam ne dafa am xam ndaw la am xam-xam moom ëpp nay bàyyi voilà koo xam xam-xam kese la kooku mu téew ko sawet rek